yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ñu ngi tàmbali di ginnaaw bi ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli seen di salaatu salaam di gërëm euh, jamiyatul xikma association xikma bi nga xamante ni moom moo amal lii euh, mu nekk daje boo xamante ni am na solo comme ni nga xamante ni ni la organiser ay waxtaan mu jëm ci ibaadaat yi julli woor asaka aji màkka niki noonu aussi organiser waxtaan mu jëm ci ni saytoo jëflante ci wàllu alal ni la amee solo euh, sëñ Xaadim nekk sunu xarit sunu wóllëre euh, ak ñi nga xamante ñoo koy jàppale ñëpp di si def lu am solo ndaxte euh, ñun yàgg nañu fekkee seeni seeni activité yàgg nañu aussi jëflante ak ñoom mu mel ni kon lii maanaam tàmbali la boo xamante ni yaakaar na ni su fekkee dem na ba wesaaroo ba conscientisation bi fa mu war a àgg mu àgg fa am na ñu njëriñ yu bari yoo xamante ni mën na see juddu te du ñàkk ci biir waxtaan yi ñu génn yenn ci njëriñ yooyu ak sunu wóllëre Issa Gueye finance dafa nekk loo xamante ni moo euh, daanaka néew na nga gis société boo xamante ni finance amu fa jëflante ci wàllu alal parce que suñu waxee finance rek xelu doom aadama dem ci euh, denc alal dem ci yaxanal alal dem ci nga am soxla pour def benn projet noo koy wutee aussi am ay risques lu ñuy tuddee risque ci làkku tubaab al maxaatir ci làkk wa arab nga xamante ni sooy def projet la but de risque yooyu am nga xool naka nga koy saytoo ba risque yooyu maanaam du du am ay effet yu mag ci sa projet boobu donc loolu moom mooy finance su ko defee donc saytu alal ba nga xamante ni dafay yokk wala xeetu wutiinu alal ba nga xamante ni nga mën a amal say projet loolu àdduna yëpp la ma sa am bi nga xamante ni doomu aadama ñëwoon si kaw suuf ba léegi léegi nag euh, jamono bu nekk microfinance ni ñu koy defee kon loolu moom moo bees waaye jëmm jëf ji ci boppam daanaka bi doomu aadama amee ba léegi euh, noonu la mi ngi woon fii si kaw suuf kon su fekkee wax loolu day biir ni jamono yu lislaam ba lislaam doon ñëw amoon na jëflante ci wàllu alal ñi nga xamante ñoom ñooy euh, yéefaru màkka yi daan nañ jëflante ci wàllu alal léegi laaj bi samp mooy nan la lislaam def ba nga xamante ni ñëw na fekk nit ñi di jëflante ci wàllu alal ñetti position mën naa am position bu njëkk bi mooy mu ñëw fekk la waa màkk di def ni li ngeen def yëpp baax na bàyyi leen ñu continuer ca la ñuy def wa illaa ñaareel bi mu ñëw ni yéen li ngeen di def dara baaxu ci mu dàq lépp ñetteel bi mu lu njët ni ah lii baax na ci lii bon na ci fekkee ñu ngi setantal ni nga xamante noonu la lislaam saytoo jëflante yi ci ci wàllu alal muy finance bi mu ñëwee màkka ñetteel bi nga xam ne moom laa mujjee tudd moom la adopté parce que dafa ñëw fekk ñuy jëflante ci xeet lu ñuy tuddee ba mooy yow am nga alal man am naa xarañte nanu boole li nga xamante ni moom la kenn ku nekk am ci may ñu liggéey su bénéfice amee ñu bokk su pertement amee aussi ñu gàddandoo ko bu lislaam ñëwee fekk lu mel noonu mu gis ni lii maandu tamit ngi am am na ci daf koo bàyyi mu jàll niki noonu am na lu ñu tuddee murabaha mooy xeetu njaay moo xamante ni kiy jaay day wax moom ñaata la ko jënde ak mbir mi ñaat la ko dikke mu wax tamit yenn bénéfice la ciy am bi lislaam ñëwee fekk xeetu njaay boobu waa màkk di ko def da ko bàyyi mu jàll nangu ko kon loolu wane ni lislaam bi mu ñëwee maanaam dàqul lépp loo xamante ni waa màkk ñoo ngi ko doon def même su fekkee sax nekk ñoon ay jullit parce que lépp loo xam ne baaxoon na rek moom da ko doon nangu waaye nag bi mu xoolee riba riba di mën naa nekk kaay ma lebal la xaalis nga liggéey soo liggéeyee alaa kulli xaal di nga ma jox dix pour cent wala vingt pour cent wala nangam pour cent te xam nga sooy liggéey di def projet projet bi mën naa réussir comme aussi mën naa échouer waaye ki nga xamante ni moom liggéeyul yàlla dafa dogal mu am alal xëy na alal sax da koo doon tëdd fale ñu ni ko yow daal lu mën a xew rek di nga am sa ndeyu alal ji principal bi teg ci 10 pour cent alors que ki nga xam ne mooy liggéey nekk sa naaj wa amul certitude que ni dina am 10 pour cent loolu mu ni loolu mànduwul moo tax mu dàq riba dàq yeneen xeetu njaay yoo xamante ni xëy na du ñàkk ñu ñu wàcc ci kanam kon ñu gis ni l'islam wala li ñuy tuddee finance islamique mooy loolu rek mooy ni nga xamante ni lislaam noonu la saytoo jëflante ci wàllu alal mu nekk nag loo xamante ni maanaam day évoluer parce que wax nañ leen sànq ni bi lislaam ñëwee fekk ay yéefar di waa di am ay doxalin yoo xamante ni rafetlu na ko nda ko cee bàyyi kon loolu mujj nekk participe finance islamique comme tey su fekkee lislaam bi mu ñëwee Sénégal dafa fekk ay jëflante ci wàllu alal wala jamono dox ba nit ñi fental seen bopp génn jëflante si wàllu alal lislaam moom da koy saytu rek par rapport ak balance bi nga xamante ni si lay nattee jëflante bu jaar yoon maandu ak li nga xamante ni maanduwul su fekkee maandu na mu bàyyi mu jàll su fekkee maanduwul aussi mu dàq ko wala mu wax naka la ñuy war a def ba nga xamante ni da ko nangu kon ci gàttal loolu moom mooy finance islamique mu mel ni kon nekkul loo xamante ni tey la tàmbali wala fu kon loolu yëpp activité yëpp dafay dugg ci maanaam li ñuy tuddee transaction financière ki noonu nit ki su fekkee yàlla mooy na ko daamar daamar mën na nekk oto mën na nekk fas mën na nekk en tout cas liggéeyukaay daamar jooju fekkee yàlla dogal am ak ndog bu ci am oto buy livré fekkee paan am na ci wala fas bi nga xam ne moo daa bay fekkee daanu na kooku outil production bi muy amoon pour liggéeyam di dox da gis ni dafay gàllankoor waaye te loolu dafay mën nekk fekkee loolu am na nag naka lañuy fexe ba waajooj nga xamante ni amoon na jumtuwaay bu mu doon liggéeyee jumtuwaay boobu sànku naka la ñuy fexe ba weccikul loolu loolu la ñuy tuddee gestion des risques te tey assurance yi di ko def kon nga gis ni lii yëpp ay mbir la yoo xamante ni maanaam euh, doomu aadama da koy soxla léegi nag suñu waxee finance islamique mooy façon soxla yooyu nga xamante ni mooy moo jëm ci wàllu alal naka la ko lislaam saytoo ba nga xamante ni nit ki dina ko def te mu ànd ak li nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala namm kon daal euh, finance islamique nekkul leneen lu dul naka ngay faje sa soxlay yi jëm ci wàllu alal wàllu koom-koom ci anam boo xamante ni sharia gërëm na ko alors ñaareelu poñ bi nga xamante ni ci TDR yi ñëw na pour ma waxtaan ci mooy principe euh, finance islamique ma yokk ci les principes distinctifs pourquoi les principes distinctifs euh, principe yi sëñ Saam xam naa dama dimbali ci <laughs> naka naka lañ koy <laughs> cëslaa yi cëslaa yi cëslaa yi finance islamique euh, man maa ci yokk distinctif mooy yi nga xam ne mooy ràññetle finance islamique par rapport ak finance ba nga xamante ni mooy ba ko fi jiitu lu tax loolu parce que euh, wax naa sànq ni l'islam du rejeter mbir rek parce que dafa jóge ci koo xam ne bokkul ak moom gisin <coughs> alxikmatu daalatul mu'min fa waja wajadaha fa huwa awlaa biha xadis bi dafa ni euh, maanaam xarañ lu baax alalu jullit la lu baax alalu jullit la boo xam ne xëy na koo sànkoon wala mu réeroon ko moo tax kon fa mu ko gisee rek saa yu ko gisee moo ca gën a yay kon yenn saay am ay principe yoo xamante ni ay cëslaay yoo xamante ni si les finances classiques bële sampu l'islam da koy nangu finance islamique da koy nangu te loolu bëri na lu demee ni ay affaire consentement mutuel maanaam ñi nga xam ne ñoo seq liggéey ci wàllu alal kenn ku nekk maanaam joxe sa sa consentement sa rida sa ngërëm wane daal yow ànd nga ci xam nga loolu yàqu alsaxan moo si ñëw wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatili ila takuna tijaratan an taradin minkum kenn ku nekk gërëm mbir donc te loolu bëri na moo taxoon su fekkoon dañ nar a lim principe yooyu nga xamante ni euh, am na ci finance te xëy na finance bële moom tamit ànd na ko àndose ko waxtaan mën naa gudd mais comme dañu bëgg a joxe ay ay exemple rek pour ubbi débat bi moo dañuy yem rek ci li nga xamante ni moo ràññatle finance islamique par rapport ak finance bële ci gàttal li ràññetle finance islamique mooy yi nga xamante ni surtout sharia na ko ci wàllu jëflante mën nga see jiital riba riba souvent dañ koy firee intérêt mais riba moo gën a yaatu intérêt mën nga jàpp ni kon lislaam na mu la mu jàpp mooy kenn warul euh, liggéey ci xaalis nga sukkandiku rek ci lebal xaa leble xaalis di ci am intérêt loolu mooy forme bi nga xam ne moo gën a wesaaroo tey business boo xamante ni da leble ñu fay la la nga xamante ni moo ëpp da nga leble woon walla nga jaay sax waxtu wa nga xamante ni moom la waa ji waroon fay jot mënul fay nga yokk la nga xam mooy lim ba mu waroon fay yooyu yëpp dafay dugg ci intérêt li ñu tuddee rééchelonnement mu ni kon la loolu lislaam da ko dàq parce que dafa jàpp ni la ñuy tuddee aywaat amu ci parce que aywaat mooy lan mooy loo xamante ni la budde mu am ci jëflante ci wàllu commerce pour que la nga cay gañe mu mën a lew biñ ci njëkk a tudd moom mooy liggéey ñàkk nit ki su fekkee dafa jaay dooleem walla mu jaay xelam lan ko ciy fay loolu lu ko lew la te su fekkee da nga ñëw ci wàllu finance. Euh, banque bi ni la man de maanaam damay dama lay teel sa sa compte wax la fa mu toll jëflante yi ngi si jëflante yépp ma ma la koy siibral saa yow soxla wi alal nga nekk Touba nga nekk Dakar nga nekk soo jëlee carte bi dugal ko rek génne mën nga nga jaral sa xaalis loolu ay service la moo tax fekkee lislaam ñëw na finance islamique moom dàqul loolu dàqul bànk la muy payeeku mu correspondre ak ay services yoo xamante ni nekkul parce que dafa lebal rek non mais dafa am liggéey boo xamante liggéey na la ko léegi nag nga mu fayeeku euh, maanaam service boobu nga xamante ni moom la moom la la defal kon iwat boobu euh, maanaam kas bu boobu lu lislaam nangu la mu nekk iwat bu bu nu reconnaître beneen bi mooy damaan euh, commerçant bi mën na jënd tey léegi micro bi wala téléphone bi ci cinquante mille génn nit fay ko ci soixante mille mu jaay ko ko daanaka xam nga defu ci effort bu am solo wala euh, risque bu am solo ñu ni kon lan moo waral loolu mooy yow su fekkee jënd nga téléphone bi nga dem sa kër taal takkul yow am nga sañ-sañ ni ko eh yow téléphone bi ma jaay baaxul mu am warugar imma mu delloo la sa xaalis wa imma mu wutal la beneen téléphone boo xam ne baax na kon damaan boobu maanaam day justifier bénéfice wala bokk na si liy justifier bénéfice bi nga xam ne moom la commerçant bi di di am ci commerce bi mu am ñetteel bi ci wàllu iwat li nga xamante ni moom mooy tax dangay am ci bénéfice mu leew mu muy tuddee al xurmu alxurmu euh, tey su fekkee da ngaa ànd ak nit def benn société ngeen liggéey alhamdulilah bi at mi jeexee ngeen am bénéfice u temps mën a nekk un million mën na nekk dix million mën na nekk vingt million fekk ci tàmbali bi waxoon ngeen que ni da ngeen di séddoo bénéfice bi cinquante pour cinquante donc soo leen amee bénéfice ngeen bokk ko loolu lu lislaam nangu la waaye nag comme yéen a bokkoon ànd liggéey su fekkee pertement am na la ngeen yaakaar noonu la war demee demewul noonu kenn ku nekk aussi di nga gàddu ci pertement bi donc loolu wuute. ak leble bi ma doon wax sànq parce que leble moom amul pertement leble à intérêt amul pertement dañ lay jox waa ji nga xam ne moo la jox dem tëddi waaye dina la gan danga ko garantir ndey ji ak 10 pour cent wala quinze pour cent la ngeen déppoo woon ala kulli xaal waaye bii ñu tuddee xormu moom su fekkee ngañaay am na bénéfice am na yéen a koy bokk mais su fekkee aussi pertement am na yéen a koy bokk moo tax lislaam ni ah su fekkee de condition boo am na ci ngeen bokkandoo su neexee ngeen bokkandoo su naqaree kon loolu maanaam euh, la ngay si gañe nekkul riba kon gis ngeen euh, bi lislaam dàqee riba condition ya mu teg pour que nga ñaay pour que bénéfice nekk loo xamantu leew la léegi nag am na loo xamante ni mën na nuru riba te du riba wax nañu sànq euh, les frais de tenue de compte yi nga xamante ni moom mooy am ci banque yi que ni loolu am dàq ko ndaxte maanaam service la bu la banque bi jox mën nañu wax aussi les frais réels transaction euh, ni ma ko mën a misaalee sëñ Loum mi ngi. mu ngi Touba am Mbay Njaay moo xamante ni mi ngi dakaar ni ko man dama soxla léegi léegi dix mille francs parce que damaa bëgg a ñëw Touba léegi léegi su ma ñëwee après fay la waaw ah, sëñ Loum daal di koy envoyé par Wari wala par n'importe quoi dix mille francs yooyu nga xam moom la laajoon. mu nekk bor euh, léegi bi sëñ Njaay ñëwee jox sëñ Loum dix mille francs yi ñu ko jërëjëf sant naa vraiment jàppale nga ma euh, donc ñu moy li ma lebaloon sëñ Loum ni ko déedéet parce que man pour ma lebal la damaa fay wari sept cent francs donc yow soo may remboursé dix mille sept cent nga ma war a fay waaye waroo ma fay maanaam 10 euh, 000 francs yaa ngi déedéet loolu loolu riba la parce que man 10 000 francs laa jot su may fay kay 10 000 francs yi nga xamante moom laa jot moom laa war a fay léegi nag loolu nekk coow waaleykum salaam wa rahmatullah ma nag kan ngeen di jox dëgg est-ce Njuum moo am dëgg wala Sëñ Njaay moo am dëgg waaye <laughs> loolu nekk problème alors su fekkee seetante nañu mbir mi danay gis ni sëñ lu moo am dëgg parce que 700 francs yi frais de transaction la maanaam bi ñu ko doon jox 10 mille francs yi nekk loo xam ne daf ko ko jox moom mu jëriñoo ko après ñu tegal ko ci non lii daf ko daf ko génn ci alalam moom sëñ Ndoum donc par conséquent moom su koy fay. da koy fay la mu génne mu nekk ay dan nag 700 francs yi nekk ay frais yoo xamante ni ci lislaam kii lépp mooy gàddu frais yooyu ci lislaam kii lépp mooy gàddu li ñuy tuddee les frais de transaction maa alal muhsinina min sabil moo tax kon li ñuy tuddee frais de transaction su fekkee da ngay leb nit frais yi nga xamante ni moo ci tegu yow mi nga xamante ni yow yaay leb yaa koy fay loolu nekkul riba teg ci bénéfice nga fay ko fi ak fukki at fukki at ak juróom ñaar fukki at selon li ngeen dëppoo wa illa mu def li ñuy tuddee musharaka mutanaqisa mu ni yow indil 10 pour cent wala 20 pour cent man ma mottali la ñu bokk kër gi waaye nag yow saa yoo dajalee ba mën a jënd lenn ci kër gi nga jënd nga xam ne su fekkee yow tàmbali bi 20 pour cent nga amoon soo jëndee lenn samay part man banque nga mujj am disons quarante pour cent man mujj am 60 pour cent soo dajalee waatee ba mën a jënd lu tolloog 20 pour cent nga mujj am léegi 60 pour cent man banque ma am 40 pour cent ngay def noonu ba keroog maanaam euh, wàllu banque bi ci kër gi jeex loolu tuddee musharaka mutanafisa loolu aussi maanaam benn technique la boo xam ne produit la boo xamante ni euh, banque islamique da koy def te banque classique yi ñoom duñ ko def mu ñëw kon ci jeexital yi muy enjeu yi xam ngeen que ni euh, évolution am na ci jamono yi weesu ci sunu dëkk yi nekk UEMOA euh, ndaxte finalement banque centrale BCEAO mujj na génne ay instructions yoo xamante ni mooy wax. ku bëgg a defati finance islamique nag nga koy defee te loolu nekk lu lu avancé bu am solo surtout pour jullit ñi ndaxte na leen mën a jox maintenant ñu mën a choisir koo xamante ni moom bëggu la jëflanteeg banque yi fi nekkoon mu am ay banque islamique yoo xamante ni nan la defal loo xamante ni maanaam dëppoon na ak sa pas-pas koo xamante ni aussi la yeneen banque yi def doy na leen waaye doy na ko mu am sañ-sañ digganteem ak boroomam la moo tax kon loolu ñu gis ni dafa ubbi ay bunt xam ngeen que ni euh, tey finance islamique alal ju bëri moo ci nekk surtout dëkk yi nga xam moo nekk euh, golfe bi ak dëkk Asie même dëkk tubaab bi mel ni Angleterre avancé nañ su baax a baax a baax ñoom sax xëy na wàllu ngëm gi ak wàllu lew gi moo leen ci dugal waaye ñoom dañoo gis ni lii am na njariñ loo xam ne mi ngi ci te ñoom soxla na njariñ loolu Angleterre fekkee ñoom koy ñoo dem ba gis njariñ loolu astumaak ñun jullit ñi parce que enjeu bi gën a mag ci wàllu finance islamique mooy am pàggute gu dagan am pàggute gu dëgan gu dagan euh, maanaam dañuy nettali nii jigéeni saxaaba yi la alayhim fekkee seen borom kër ñu ngi doon génn dañ leen dogale ci buntu kër gi ko diw waaw danga nga fexe ba looy indi ci kër gi ci dépense na nekk lu lew ndaxte ñun mën nañoo mun xiif waaye mënuñoo muñ safara loolu di tekk ni maanaam pàggute goo xamante ni lewul day nëw yóbbe nit ki ci safara comme ni ko xadis bi waxee lépp loo xamante ni bépp yaram woo xamante ni dañ koo suuxat ci loo xamante ni lu lewul la alal ju lewul safara moo ci gën a yey kon su tey finance islamique ñëw na jullit moom bët bu muy njëkk a xool ci finance islamique boobu mooy da koy permettre mu am maanaam pàggute gu lew beneen bi mooy mobilisation des ressources tey certainement ci Touba bëri na ñoo xamante ni seexlu nañu banque yi fi nekk ndaxte dañoo bëgg lu lew xëy na loolu soo ko doon natt ay milliards la donc ay milliards yoo xamante ni tey waroon naa mën a dugg ci économie réew mi wala économie Touba te dugg fa te pourtant ak système mudaara bi ma doon wax sànq milliards yooyu su fekkee duggoon na ci économie à travers banque yoo xam dañuy dañuy dox comme ni nga xamante ni noonu la ko charia waxee. banque boobu jël milliards yooyu boole kook milliards ya mu yore ñaata projet lañ ci mën a financer supposons mu nekk 10 milliards 10 milliards ñaata projet lañu war a mën a financer ak 10 milliards supposons nga ni projet bu nekk soxla na un million en moyenne 10 000 projets. dix mille projet ñaata parce que da ngay jàpp ni projet bu nekk ñett nit en moyenne ñeent nit juróomi nit waral sama la liggéey te juróomi nit ku nekk euh, maanaam nit ku nekk si juróomi nit ñooñu am na juróomi nit ñu boot si ginnaaw nga gis que ni loolu fekkee xool na ne effet bi mu nar a am ci ci koom-koom bi effet bi mu nar a am ci société bi ci la vie sociale des des des gens dans la dans la ville. loolu effet bu mag la su fekkee saytu nañ ko euh, maanaam nañ ko war a saytoo te loolu nag dafay am solo moo tax euh, Issa ci waxtaanam comme moom spécialiste gestion des projets la dina ci ñëw euh, bu baax a baax parce que maanaam pour que projet yi mën a mën a jur mën a antu il faut que am ay yoon yoo xam sa la jaar gis nga Chine tey mi nga xamante fa la ñuy dëgmal fanweeri at ci ginnaaw fii mu toll toll foofu waaye ñoom dañoo miser sur les PME petites et moyennes entreprise développé ko financé ko jàppale leen ànd ak ñoom ba tey euh, en terme de de de commerce ñoo ci numéro un donc loolu lu mën a lu mën a nekk la su fekkee euh, liggéey nañ ci ni kon mobilisation ressources yooyu yaakaar naa ni su fekkee finance islamique samp nañ ko fii ci ci ci réew mi mais aussi ci ci ci biir dëkk bi. war naa mën a jur ay njariñ lu bëri bëri bëri bari bëri parce que day tax ña denc seen alal te bañ koo dugal ci ci économie bi génne ko permettre ñiy liggéey am ay xalaat yu rafet ñu liggéey ci mu nekk loo xamante ni day créer emplois aussi day euh, maanaam rafetal gën a yokk dundu nit ñi beneen bi mooy am na ay projet yu bëri si wàllu infrastructure infrastructure suñ ko waxee tali si la dugg euh, lu ñuy naane si la dugg euh, forage yi euh, hôpitaux yi si lay dugg et cetera yooyu financement yi am na finance islamique am na ay jumtuwaay yoo xamante ni war nañ ko mën a financer même su fekkee sax alalu nit ñi la maanaam gouvernement bi dugalu si loxoom dafa am benn. mbir boo xamante ni ñu ngi jot nañ ci liggéey muy euh, diaspora Sukuk diaspora Sukuk mooy ñi nga xam ne dañu nekk bitim réew yàlla dogal xëy na 6 mois yu nekk wala 2 mois yu nekk wala et cetera ñu yónnee alal ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñooñu imma danoo yore seen benn compte fii seen waa kër di di retirer xaalis foofu wa imma fël leen ko yore di à chaque fois ñuy envoyé par Western Union par Waripax et cetera su fekkee def nañ diaspora sukuk yow mi nga xam yaa nekk foofu yore sa mille euros 10 mille euro mën nga ko dugal ci fond bi wala si sukuk yooyu nga jënd ay sukuk nga xamante ni chaque si mois di ci am loo xamante ni moo ciy juddoo ñu fay la ko soit ñu jox la ko sa njaboot soit ñu dugal la ko sa compte te lanu dajale ci alal. ñu mañ ci tabax ay infrastructure yoo xamante ni nañ ci maanaam na permettre waa réew mi waa dëkk bi gis seen bopp donc loolu aussi beneen jumtuwaay la yoo xamante su fekkee euh, jot gi may na ko waxtu yu jeex na donc euh, mu nekk ay ay tomb yu bëri wàllu lutte contre la pauvreté waxagun ci wàllu euh, financement secteur privé wàllu wax wàllu zakat donc yooyu yëpp nekk ay ay mbir la yoo xamante ni xam naa su fekkee dugg nañ ci biir débat yi mën nañ ci euh, gën a waxtaan ñu indi aussi ñun lañ ci xalaat incha allah euh, ñu ngi jégalu ci guddal bi euh, lépp loo xamante ne gën a si ñun la lépp loo xam jublu si yàlla la aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa qul saa'il muslimin ya malikal mulki ya